Anyways.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 te nag boo seetee drogue bi lëmbe réew mi du yamba du kaju du xeetu drogue yu woyof yi waaye héroïne cocaïne ma ne réew maa ngi bëgg a mel ni Colombie laa wax ay waay lu xew senegal la xew ca Kidira romb na doy waar drogue bi ñuy tuddee cocaïne lañu fa teg loxo ci quantité bu sakkan sakkan bu ab camion frigorifique doon rawale quantité drogue boobu naa nee ñu mi ngi toll ci mille cent trente kilogramme ëpp te loolu yëpp nag boo ko doon xayma ci xaalis ma ne mi ngi toll ci quatre-vingt-dix milliards ak lu ko topp pop saisir record yooyu nag sunu douane bi ñu ngi ko def ci lu matul ci weer ndax xam ngeen fan yële passé tegoon nañ fa lu toll ci quatre-vingt-douze kilogramme bu cocaïne fële ca Kumpentoun moom it xaalis ba boo ko doon xayma mu toll ci juróom-ñaari milliards ay waay waay wax leen ci drogue bi ci réew mi moo tax ñaari colonel à la retraite yi di Antoine Wardini ak Sango Fati ñoo ngi tirer la sonnette d'alarme ndax ne ñu fi mu ne Sénégal dëgg dëgg nag l'heure est grave fi mu ne réew mi mi mel ni rido may ga fu ne la drogue bi di balee di jaar moo tax colonel Wardini ne dëgg-dëgg suñu douanier yi ay jàmbaar lañu waaye nag ñoom kottu kese mënuñoo xeex xeex bi te xeex bu ni mel du benn unité bu nekk Sénégal kottu moom moo ko mën a gérer li war am kay mooy yi interconnecté mutualiser force yi bu ko defee ñëpp taxaw jàmmarloog moom nee na ci biir xeex boobu tamit li ñu war a gën a def mooy renforcer suñuy force de défense et de sécurité en particulier l'armée la douane et les eaux et ba ñu am maillage territorial équipé leen ba ñu mën a jàkkaarloog samba boy yi population bi tamit ci xeex boobu waruñu cee des ginnaaw ndax problème bi dëgg-dëgg léegi problème de sécurité nationale la képp ku gis ab camion mbaa béréb boo xam ne la ñu fay def lu luus la ma ne li war a def mooy fexe ba renseigner suñuy force de défense et de sécurité yi bu ko defee ñu mën leen a yombal liggéey bi ndax trafic de drogue bi xew ci réew mi li mu mën a yàq ak li mu mën a def ci jeunesse bi dëgg-dëgg maara dee taali au delà trafic boobu sax trafic d'être humain bi ñëpp a réew mi mi daal jéggi na dayo ba foo xam ni foog ñu renforcer suñuy force de défense yi di leen accompagner ci xeex bi ba lu ni mel mën a dakk ci réew mi ndax réew moo xam ne léegi saa boo yeewoo ay saisie de drogue dure yu mel ni cocaïne wala héroïne wala ay phobie gis ngeen ni ñu naan ñoxor njaay fole ca Kolda jagati nañ fa loxo valeuru phobie bu takku boo xam ne it boo ko doon xayma toll na ci juróomi milliard waa baax na rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Sédhiou day na war es Diallo di ab enseignant à service d'académie bu Sédhiou moom dal ne ay at a ngi nii ay nit ñëw di bëgg a taal këram waaw waaw waaw waaw te nee na nag ñooñu di bëgg a taal këram ñi mu njortu ne ñoo ko bëgg a def ñaari jigéen lañu à chaque fois bu ñu sàkkee seen pexe ba bëgg a def lu ni mel bu ñëwee ci béréb bi dafay fekk ay brin Romain <laughs> waa ñi moom lu tax ñu bëgg a taal kërug jàmbur nee na nag saisir na yoon lu bare waaye à chaque fois day gis ne enquête bi du aboutir fenn fi mu ne nag bakkanam mu ngi ci xottu gerte ndax ñaar ñi mu njortu ne ñoo bëgg a taal këram bis bu ne ñu ngi lal seeni pexe te seen pexe boobu bu sottee ñu taal këram te bu ko fekkee nag ci biir boobaa wala njabootam musiba naaru laay mën na ko jur ay waay waay waay Sénégal Sénégal li fi am kenn mënu koo wax daal kër jàmbur nag waay way waay réew mi li fi am doy na waar mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz